évidence bi kon tey jii commerçant yi tey la ñu gën a jàpp moi je vois des commerçants qui étaient à Touba j'en ai vu qui sont à Sandaga tey jii fi may wax ak yow nii ñenn ñi dem nañu Nicaragua ñeneen ñi ñu ngi Chine parce que fa la ñu nekk di daan seen doole waaw pour kër bàyyi neexoon danañ dem ma ne yaakaar la ñu am pour lu changer Sénégal Sénégal nag benn nit du moo koy changer ay nit ñooy méngooy xalaat ñooy méngooy gis-gis ñooy am yéene te seen yéene du mooy lenn lu mooy fu nekk ñu dem wuti ko bu ñu ñëwee séddale ko askan bi te nangu caa gën a néew loolu mooy li président fàtte mooy loi yi am nga location bi dama amoon lu ma ca waxoon mais j'ai l'impression que bàyyiwu leen ma xel ba léegi ñi war a wàññi location ñoom ñooy loué kër yi ñi war a tax location bi noonu ña koy décider ñoom ñooy bailleur ñooy loué kër yi mooy ñoom punkal yi dégg nga démb ñu naan la ay juróomi nit ñu jox ko 5000 parcelles 9 personnes. ñu séddoo dix mille parcelles mais mais parcelles yooyu ñuy joxe coowal foncier yi coowal littoral mais amul fu coow musa am te ñoom waa impôt et domaine cëraluñ leen fu ñuy dagg suuf ñoom ñooy njëkk a sédd président dégg naa ko nangul suuf yi nanguwul suuf yi suuf yooyu gars yi séddoo nangu ko nit warul am nee nga 2000 parcelles commencé ci sa bopp. très bien. a commencé boppam il a 4 hectares 300. 4 hectares 300 200 kër mën na cee génn. kan moo ko ko jox actuel ministre boo xam ne ci moom la fee mooy li may wax sax ministre boo xam ne Macky Sall la àndal ans. bi élection yi ñëwee mu roof marche arrière ñun ñi doon xeex Macky Sall opposition ba boobaak léegi ñu ne non ñun baaxul mais kooku rocc ko ci Macky Sall non ñoo ñoo baax. Lamine du waxul dëgg wax leneen kon ngeen xam ne li ñu jàpp mooy liy defar réew mi dong. mooy li ñu tax a te it ci loolu la ñu nekk boo gisee nit ñi am lu leen nekk dañu waxoon ne dundinu état bi mais est-ce que man Bougane dama gëm ne Macky defut lu baax ci Sénégal moom moom la gëm. Macky jël réew mi pàcc pàccal ko fu nekk mu def fa direction. fu nekk mu jël nitam roof yow nga ñëw jël nguur Macky na mu pàcc pàccale woon direction yi nga bàyyi ko fa jël say nit yow it roof c'est comme pour dire Macky Sall li mu doon def baax alors gëm ne Macky li mu liggéey lu ci bari moom cancer au Sénégal kon rationalisation dépense u état ak train de vie de l' loolu encore une fois soxlawul majorité assemblée nationale pour wàññi li état bi dunde ak li état bi jëfe soxlawul ñu dem assemblée nationale ngir ñoom ñu ëpp fa parce que loolu ay décision yoo xam ne mu am ay jeunes sénégalais yoo xam ne dañu xeex boobaak léegi jàpp ne bokkuñu ci kër yi nga xam ne dañu leen di defal coup de ñu jàpp ne ñoo war nañu bokk ci liy defal Sénégal di xaar appel à candidature Foulas Diallo xëy dégg naa sax léegi ci biir débat yi boo leen waxee appel à candidature ñu ne dañ ne woon pour certains postes <laughs> certains postes de bu fekkee ne li bi nekk yëpp joxe ngeen ko lan moo ci des lu fi des lu ñuy joxe amul dara amul dara loo xam ne moom moo fi des lu ñuy joxe kon nit ki li mu digee da ngay fexe warloo ak moom dégg naa président mu ne. dañuy ñëw fekk fi fond politique euh, monsieur le président monsieur le président man Bougane bi maay wax ak yéen monsieur le président le rapport d'exécution budgétaire bu premier trimestre 2024 mi ngi ci sa président li mu wax ci fonds politique yi amul waa léegi d'accord Macky Sall lekk na fonds politique moom nee na fekku fi fonds politique dëgg la fonds politique mbind mi maanaam kàddu gi fonds politique amul fekk na fi fonds spéciaux le rapport d'exécution budgétaire bu 2000 bu premier trimestre 2024 mon président de la République dama nekk je le mets au défi budget présidence 22 milliards lañ ci lekk lañ ci consommé la ca des anam bu ko Macky Sall lekkee nañ ko woo bu ñëw ñu dóor ko ci mbaal comme ñu leen defoon document bii mu ngi ci taabalu président ce document là mu ngi ci taabalu président le budget de la présidence de la République vingt neuf vingt huit pour cent lañ ci compté boobu oh. li ci des anam le budget global vingt quatre virgule quatre vingt trois pour cent la ñu consommé la ci des anam donc moom président bu dee fekku fi fonds politique. waaw nañu wax fonds spéciaux yi anam. encore une fois wutuma lenn lu may mu leer man Sénégal rek moo ma intéressé lii ba ñu ko déposé lii 30 mai je crois lañ ko déposé mu ngi ci table assemblée nationale président assemblée nationale moom président am na ci copie yeneen ci structure am nañ ci ko du document bu confidentiel nag balaa ñu naan woy gars yi daan ko nëbb jant bi lii du confidentiel gis kenn bind ci confidentiel parce que alalu réew mi la alalu réew mi ku nekk ci ñun mën na koo say kon moo tax bi ma ko déggee mu ne caisse noire en fait fonds politique fekk ko fi xam nga politiciens yi dañuy nax Sénégal yi am na ku la nee fekk man fekkuma fi fonds politique nga ne waaye gars yi jour nañu fonds yi fekk nañ mais yow fonds yi li ñu voté vingt deux pour cent du budget vingt huit pour cent du budget la ñu consommé ci au niveau de la présidence et globalement vingt quatre virgule huit pour cent la ñu consommé mais ci fakkul bënnul dafa ne woon jógu fa wax fu jàpp waaw mais Ali Kalaj gi mooy ñoom dañu waxoon ne fonds politique baaxul dañu waxoon ne fonds politique dafa xaraam man ci sama document programmatique dama ne fonds politique yi dañu ko war a comptabiliser pour lu cay génn ñu xam fu mu jaar fu mu jëm ak naka lañ ko jëfandikoo loolu la waxoon mais ñoom nee nañu fonds politique dafa xaraam mais démb seen waxi démb ji wax du leer la nee nañu fonds politique dañ koy soppi fonds secret waa léegi wax leen li yéen six ak ndax boo ci juutal day wuteeg morom alors donc nañu bàyyi di nax Sénégal man ci loolu rek laa nekk man Sénégal rek moo ma intéressé Sénégal rek moo ma ñor te ci loolu rek laay dégg naa ci biir kàddu yooyu nga xam ne sax yëkkati nañu parce que Bougane daf leen jaaxal la man dama jàkkaarloog nguuru Ablaye Wade quand je dis jàkkaarloo sur le plan politique jàkkaarloo moo woon ak mais dama amoon groupe de presse boo xam ne dafa amoon lii éditoriale lu reporter wax sax ñu ne waaja moo ko wax loo te yàlla xam na ni nit dina liggéey foofa ba gën a yàlla xam na ni du ma gis keroog dama doon waxtaan ak Salma Ibrahima Salma Ibrahima Fall mu wax mu ma effectivement man des eh, médias mais man mosuma la gis pourquoi parce que am na ay nit ñu fa nekk ñu professionnel ñuy liggéey d'ailleurs c'est le lieu de les féliciter parce que démb gis naa leen ñu diffuser euh, le show du président pourquoi mais mënoon na